dogal bi nga xam ne njiitu bu bees bi daal dina koy jël bettul kenn rawatina ñenn ci observateur yi ndax nag ñoom ñii de waxoon nañ ne décision yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall daan na koy jël ci jamono joo xam ne daanaka ay waxtu rek ñoo ko desaloon ci bopp réew mi ku moywul du gudd fan mbir ma nag noonu la demee ndax nag Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne moom la ñu fal bees daal dinay jël ab ndogal abrogé bépp décision mi nga xam ne njiitu réew Sall jëloon na ko ci ndaje conseil supérieur dala la magistrature bu mujj ci fàttali ci ndaje boobee njiitu réew Macky Sall dafa jëloon ay ndogal yoo xam ne andi na fi ay coow bu dee saxa bu ñu sukkandiku ci ñi seen xel màcc jëm ci wàllu yoon nee nañu amul lenn loo xam ne dëppoo ci ak yoon waaye nag ñenn ñi jàppoon rek loole defa inélégant ci décision ya mu jëloon nag bokk na ci magistrat Abdoulaye njaay mi nga xam ne daka di tabb def ko premier président de la cour suprême. mu wut fa nag Siré Ali mi nga xam ne dem na retraite beneen ndogal ba mu jëloon mu di na bu Ndiaye Diakhaté mi nekkoon ca OFNAC daal di koy tàbb def ko première avocate général waaye nag loolu yëpp daq na bis ni ki tey ndax nag kiñ fi fal bees di Bassirou Diomaye Faye jël na ab ndogal abrogé ko maanaam daal di koy niilal